mbokk yi incha allah kon ñu ngi war a jël tey ay quatre-vingt-sept bi ci suuratu nisa ci suñu boroom jalla wa ala di waxe ni allahu la ilaha illa hu alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bokk ñu ngi santaat suñu boroom jalla waala mi ñu wërsëgalaat ñu daje ci suñu juróomeelu daje ci weer wu màgg wu tedd wi di chahru ramadan atum 1444 tey di tombeeg le 27 mars ci 2023 ñu daje ci néegu borom bi jalla wa ala yàlla dogal it muy bisufu altine yi fàttali mbokk yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na di woor altine ak alxames ñu laaj ko mu ne ñaari bis la yoo xam ni malaaka yi dañuy gaaral borom bi jëfi jaam yi doonte ne moo leen gën a xam su ko defee mu jéggal leen seeni bakkaar ba mu des ña noonoo ak ñay bokkaale loole kon tamit dulit bu dëppoog moom ci biir chahru ramadan mu xam ne ci bisu ngëneel yi nga xam ne même bu doon même bu dul woon ak ramadan wooroon ko nekkoon na ngëneel kon niñ leen ko waxee rek ngi ñaanaat yàlla subhanahu wa taala boole ñu ak ñëpp ñi nga xam ne dañoo nekk ci yeneen i gox ca ànd ak ñun ci la nga xamee ne nii moom mooy daje bi ñuy daje fayal ñu it ñi nga xam ne ñoo dox suñu digganteeg ñoom ñëpp ca télévision Islam TV ak site yi nga xam ne moo aju ci jàkka ji yëpp yal na yàlla boole ñu nangul. kon incha allah bu Cheikh Ousmane pare mu jëlal ñu suñ bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أوكفهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom jalla wa ala mu ne allahu la ilaha illa hu yàlla day kenn yeyowul ñu koy jaamu ku dul moom la yajma'annakum ila yawmi alqiyama dana leen dajale ci bisu taxawaay boobee di alaxira laa rayba fiihi benn sikkaamu ca wa man asdaqu min allahi xadiisa moo ko gën a dëggu ci yàlla la nga xam ne mooy wax ya muy wax fama lakum fi lmunafiq fi lmunafiqina fi atayn ba yéen jullit ñi lu leen ñeel ba mbiri naafiq yi ngeen nekk ci ñaari kuréel wallahu arkasahum bima kasabu te yàlla day moo leen dëpp ca la nga xam ne faggu woon nañ ko aturiduuna an tahdu man hada man adalla allah ndax da ngeen a bëgg di jubal ku yàlla réeral ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ku yàlla réeral day doo ko amal mukk aw yoon waddu law takfuruuna kama kafaru ñoom day ñi ngi doon sopp ngeen weddi comme ñoom nañu weddee fa takunuuna sawaa su ko defee nag yéen ñépp nag ngeen yemoo fala tattaxidu minhum awliyaa xatta yuhaajiru ñooñee day bu leen jël ci ñoom benn ay ji féeti lu dul dañoo gàddaay jëm ci yoonu yàlla fii ay yuhaajiru fi sabilillah ñu gàddaay ci yoonu yàlla fa in tawallaw bu dee dañoo dëddu nag fa xuzuuhum wa qatuluuhum jàpp leen leen ngeen rey leen leen xaysu wajadtumuuhum fu ngeen leen mën a fekk wala tattaxidu minhum waliyan wala nasira ca bu leen jàpp ci ñoom aji péete wala kenn koo xam ne ku leen di dimbalay doon ku leen di dimbali lay doon mi ngi noonu mbokk suñu boroom jalla waala moom mooy bàkku te moom rek yeyoo bàkku te it diini lislaam ab julit du bàkk ku dul yàlla mu ne moom mooy allah allah mooy ka nga xam ne mooy al ilah ka ñuy jaamu nga xam ni mboolem yéeféer yi jëkk yépp nangu woon nañ ne moom mooy yàlla fa mbir mi nekkee kay mooy dañoo jàppoon ni amoon na yeneen petit yàlla gannaaw grand yàlla waaw suñu borom nag ne déedéet allahu la ilaha illa hu yàlla amul kenn ku yeyoo ñu koy jaamu ku dul moom du jibril du mikail du uzayru du isa du muhammad du abubakar kenn ku yeyoo ñu koy jaamu mbokk lii di kaddu la ilaha illallah mooy lu gën a màgg luy génn ci gémmiñu doomu aadama koo xam ne nii xam na lan mooy la ilaha illallah yàlla dogal la ilaha illallah mujj ci làmmiñam bu dee àjjana la jëm loola tax yonent bi alayhi salaam daan wax su ngeen fekkee seen mbokk mi sukuraat e way fàttali leen ko la ilaha illallah ko defee nga ne ko diw waxal la ilaha illallah donte ne am nañu naan doo ko wax waxal da nga koy wax ci wetam rek waaye soo ko waxee waxal ba mu wax ko it loolee da ngay gis ne ngëneel la yàlla mu ni kenn yeewul ñu koy jaamu ku dul moom moom nag moom moo diggee ne dana leen dajale yowmal qiyaama ca mbokk ñaar yooyu mooy li gën a të ab yéeféer gëm ko benn gëm yàlla kenn la ñaareel ba gëm àllaaxira am na soo delloo ci téere bi yàlla yi téere bi yàlla bi lu ne nettali na ko ci seeni lay a isa mitna wa kunna turaban wa isama mi ngi noonu ndax bu ñu deeyee ba nekk ay poussière nekk ay yax nu dañu dekkal suñu borom mu ne déedéet la am kay mooy lu ngeen mën a doon qul kunu xijaratan aw xadida aw xalqan mimma yakburu fi sudurikum fexe leen bu ngeen dee ngeen nekk lu leen neex te leen nekk leen xeer weñ ak lu ngeen mën a xalaat su ko ne suñu borom mu ne dana leen dekkal borom bi mu ne fa sa yunriduna ilayka ru wala boog fa sa yaquluuna man yuiduna daañu wax ku ñuy dekkal qul illazi fatarakum awwala marra ne la yàlla mi leen jële woon ci toqama ni yu ci seen ndiggu bàyyi def leen ngeen nekk nii di di dàgg sante yàlla moomu bis ba ngeen demee ba nekk poussière moo leen di dekkalaat te ana ko gën a dëggoo ci yàlla ci ay wax loolu tax ba suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam bokk na lu bëri lum daan ubbee ay jataayam wa inna asdaqa alxadisi kitabullah li gën a dëggu ci wax mooy téereb yàlla bi nga la waay doomu aadama bi loo mën a dégg ci ay wax lu mu ñàng-ñàng lu mu neex-neex xamal ne lay dëgg daal mooy lu dëppoog alquran leneen lu dëppoowul ak alquran ay léeb laa ki xamu nu ma ko mën a tuddee bànneexu xol tahwal anfus luy bànneexal bakkan kese waaye yàlla rek kay wax dëgg kan moo gën a dugg ci wax ci yàlla loolu daal di jàll gis nañu ne bi ñuy demee keroog di xare ca Uhud yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd na ak junni ci ay sahabaam bañ demee ba ca yoon ba Abdullah ibnu Ubay kilifa naafiq yi convaincre trois cent te ñoom ñu dëpp loolee nag ba ñu jógee Uhud ak la leen fa dal yépp sahaaba yi ñenn ñi ci ñoom ne ñii day ay naafiq lañu ay yéefir yu laq lañu ay naafiq lañu ñeneen ñi di leen wax naan a déedéet duñ duñ leen wax ay ay ay naafiq lañu wala ay yéefir lañu suñu borom nag mu ne waru leen ci woon a am ay juum ay ay juyoo te mooy ñooñu ay naafiq lañu te it yàlla moo leen dëpp ba ànd nañoo yonent bi jihaad lu ko waral mooy bi ma kasabu te la nga xam ne nekkoon nañ ca ci ak kéeféer nekkoon nañ ca ci naafiq guñ doon nëbb te la leen yàlla dëppe mi ngi noonu borom bi ne ndax da ngeen bëgg a jubal ki yàlla réeral te julit mbokk wurul xool koo xam ne dafa génn d'islam mu bëgg koo boole ci l'islam bokk na ci loolee képp koo xam ne gis nañu ko du julli du woor faalewul la nga xam ne mooy faratay diine ku mel ni amoo droit di ko wax sama mbokkum julit am déet suñu borom mu ne way fa in taabu wa aqamu sala wa aatawu zaka fa ixwanukum fi din suñ demee ba nangoo tuub dugg ci diine ji naam benn ngoo waaye ñu nangoo taxawul julli nangoo joxe azaka su boobaa seeni doomi ndey lañu ci diine ji waaye ki bañ lii kenn amul droit di ko wax suñu doomu ndey ci diine ji nan nga leen di bëggee boole ci ñu jub te yàlla réeral leen ku yàlla réeral kenn mënu koo jubal suñu borom di wax lan mooy jubluwaayu dëgg-dëgg naafiq nee nañ suñ sañoon yéen jullit yi ngeen weddi ni ñu weddee ca mi ngi noonu loolu it mooy jubluwaayu yéeféer te naafiq du kenn lu dul yéeféer mu sol mbubbum jullit te it mbokk loolu xam leen ne loolu mooy guerre bi gën a rëy tey la troisième guerre mondiale bi am tey mi ngi nekk benn guerre culturelle xeex boo xam ne Occident moo ko jiite li ñu bëgg an takfuru kama kafaru fa takununa sawa mooy nit ñëpp bàyyi seeni aada bàyyi seeni culture bàyyi seen diine tënku ci li ñuy tuddee nouvel ordre mondial ci wàllu économie ba wàllu militaire ba ci wàllu culture ba la Occident gis ne moo rafet ñëpp jàpp ne moo rafet te mooy bokk na lu Occident gis mooy góor ànd ak moromu gërëm naan ko madame mu naan ko monsieur jigéen ànd ak moromu jigéenam naan ko madame mu naan ko monsieur kum neex dem nekk góor jigéen kum neex dem nekk travesti yow góor nga wala bu ñu nga ne déedéet bëggatuma nekk góor jigéen laa bëgg a nekk jigéen ji xëy xëy bëggatuma nekk jigéen góor laa bëgg a nekk mooy LGBT boobu nga xam ne seen diine la dañ koo bëgg a imposer àdduna bi yépp ku ko deful ñu ne la yow ah mérité nga sax ñu daaneel la ndax yow doo démocrate gis ngeen borom boobu subhanahu wa taala nag ne ñooñee nga xam ne dañu ne yoo gëm nañu ba pare konte continuer toog ca kéeféer ga gëm naa fiq yooyee bu leen leen jël di leen def féetewoo lu dul dañoo gàddaay jëm ci yoonu yàlla te mboo ko xam leen ne avant suñu borom yàlla di doole l'islam dafa nekkoon farata ci képp ku gëm nga gàddaay dem madina dafa nekkoon farata ci ci ñoom képp koo xam ne da ngaa toog sa kër naan yow kat ab julit nga ca nekkoo koo xamee ni nii gàddaayuloo borom bi subhanahu wa taala mu ne ñooñu fu ngeen leen fekk na ngeen leen rey ca loolu it mbokk dañuy gis ne gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba am tolérance ba yàlla dimbali ko mu xare badr ba gañe dafa am giir yu bëri yoo xam ne dañ ñëwoon ne ñun kat tuub nañ dugg ci lislaam lan moo doon seen jubluwaay ci loolu mooy ngir yonent bi bañ a dem di xeex ak ñoom yonent bi alayhi salaam lu mu daan def buñ masaan ñëw mu jàngal leen julli jàngal leen nodd ne leen bu julli jotee nodd leen ngeen julli léegi nag da daan wax sahabatul kiram heure bu ngeen demee ci dëkk na ngeen fanaan ci dëkk ba ba fajar jot suñu demee ba jant bi fenk déggu leen fa nodd ñu attaqué leen loolee mbokk ngeen gis noddu ni mu nekkee garantie ci jullit ñi i ngi noonu bu ngeen déggul noonu da ngeen attaqué leen loolu tax suñu mag ba Abdul Aziz Touré xafisahullah bokk dun muy wax mu ne kër gi gaaf mooy kër goo xam ne boo fa toogee doo dégg nodd mooy leen loolu mooy kër gu gaaf te loolu it nga gis ay nit ñoo xam ne jàpp nañu yàlla xéewal na leen dañuy dem dëkki Almadi dem dëkk ci ay quartier isolé yoo xam ne ni kenn du leen fa déranger amul jàkk amul dara bokk loolu musiba la musiba la julit dëkk foo xam ne du dégg nodd ñu noonu borom bi subhanahu wa taala kon mu ni naafiq yooyee ngalawaay heure boo xamee ne nii seenu naafiq leer na ci ñoom déclaré leen yéen it ne contre nga leen ba bu leen jël ci ñoom péete bu leen jël ci ñoom kenn ku leen di dimbali kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne ila allazina yasiluuna lu dul ña nga xam ne dañoo jokk jeeg ila qawmin baynakum wa baynahum misaq ci xeet boo xam ne seen diggante ak diggante ñooñi ak kóllëre dafa dox aw jaa'ukum xasirat suduruhum wala ñu leen di dikkal muy nekk di xat lool seen xol ya an yuqaatiluukum aw yuqaatiluu qawmahum ci ñu nekk di xeex ak yéen wala di xeex ak seen xeet walaw shaa allahu la sallatahum alaykum su neexoon yàlla day dana leen xiirtal ñu dal seen kaw fa la qaataluukum ba nekk di nekk di xeex ak yéen fa in fa in itazaluukum su dee ne nag fekk nañu leen falam yuqaatiluukum xeexuñu ak yéen wa alqaw ilaykum assalama sànni jëm ci yéen da nga xam ne mooy ak jàmmoo fa ma jaala allahu lakum alayhim sabila xam leen ni yàlla deful ñeen leen ci seen kaw aw yoon sa tajiduuna axarin da nga fekk nag ñeneen ca naafiq ya yuriduuna an yamanuukum wa yamanu qawmahum dañuy bëgg am seen kóolute am seen kóolute xeet kullama ruddu ila al fitna heure bu ñu leen delloo ci fitna ca mooy bokkaale urkisu fiha ñu dëpp dellu ca bokkaale googee fa in lam yactazilukum ñoom de bu ñu leen fegul wa yulquu ilaykum assalama daa di sànn ci yéen la nga xam ne muy ak jàmmoo wa yakuffu aydiyahum ñu fekk seen loxo ya fa xuzuuhum jàpp leen leen waqtuluuhum rey leen leen xaysu saqiftumuuhum fi ngeen mën a daje ak ñoom wa ulaika jaalna lakum alayhim ñooñee day def nañ ñel leen ci seen kaw sultaana mubina li di lay boo xam ne lay bu biir la mbokk aaya yi dañ koy jàng waaye aaya la yu ñu man suuxal mooy règle biñ ci jàngi ni ba ñu demee ba ca atum juróom ñeenteel ma ca la yàlla wàcce suratu baraa daa di wane ne nag yéeféer yi la nga xam ne ay pacte la yu doxoon seen digganteeg dulit ñi jeex na délai maximum bi mooy ñeenti weer gannaaw loolu julit amatul ak benn yéeféer benn pacte li fi dox kay mooy ngeen ñëw dugg ci lislaam wala fu ñu dajeeg yéen dañuy xeex ak yéen waaye lu jiitu loolu suñu borom mu ne ña nga xam ne nii day da ngeen a am ak ñoom ko lëre a ñooñu na ngeen leen bàyyi te it gis nañ ne keroog bi yonente bi alayhi salaam siñente la ñuy tuddee sulhu uday benn ba abonti hudaybiya ñoog waa Makka lañ dëppoo woon giire arab yi kum neex na ñëw farak waa Makka kum neex farak julit ñi su ko defee bépp ku farak julit ñi waa Makka duñ ko xeex ku farak waa Makka julit ñi duñ ko xeex xam ngeen sax loolu jalgati gaka waa Makka jalgati moo waral ba yonent bi ñëw ubbi Makka ala kulli xaal kon mi ngi noonu ñooñu nga xam ne dañu ne amante ñoom kulëre bu nañ leen xeex ñooñu nga xam ne it dañoo ñëw ci yéen leen ñun kat bëgguñu leen a xeex bëgguñu it xeex seen su sunu waa dëkk li ñu bëgg daal may leen ñu jàmmoo ak yéen ñooñu it may leen jàmm googe tant que ña ngay respecté loolu da ngay gis ñoo xam ne nii ñoom daañu ñëw ci yé- ci yéen bëgg rek ngeen jàmmal leen waaye dañu dem ànd ak seen waa xeet ci suuf ànd ak ñoom ca bokkaale googee ñooñee day bu ñu ba téewul seeni loxo xanaa ngeen gis leen dañoo jóg bëgg leen a xeex ñu mel nii moom même bu dee siñante ñeen ak yéen fa ngeen leen fekk jàpp leen leen ngeen rey leen ca xam ne ne yàlla def na ci ñoom ñeel leen def na ñeel leen ci seen kaw lii ji lay boo xam ne lay bu leer la kon looloo tax maadaama dañ ko mën suuxal ñu jaar ci tafsir bu gaaw boobee incha allah Cheikh Ousmane jàngalaat ñu
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فرية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا مُؤْمِنًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا بارك الله فيكم suñu boroom jalla wa ala mu ne wa ma kaana li mu'min du ñeel mukk ab julit an yaqtula mu'minan illa xata'a mu rey mbokkum julitam lu dul ci njumte wa man qatala mu'minan xata'a ku rey ab julit ci njumte fa tahriru raqabati mu'mina ku mel noon day na goreel jaam boo xam ne bu gëm yàlla la wadiyatun musallamatun ila ahlihi daa di joxe la nga xam ni mooy benn diya benn njot daan boo xam ne da koy delloo bu ñu muccal jox ko njabootu kañ reyal illa an yasaddaqu xanaa lu dul njaboot ga dëppoo daa di la koy baal fa in kaana min qawmin aduwin lakum su dee ka ngeen rey day daa bokk ci xeet boo xam ne ay noon lañu ñeel leen wa huwa mu'min te moom nekk na julit fa tahriru raqabati mu'mina kon goreel leen jaam bu gëm yàlla rek ngeen yem ca loolee wa in kaana min qawmin baynakum wa baynahum misaaq waaye bu dee daa bokk ci xeet boo xam ni seen diggante ak yéen julit ñi kóllëre dafa dox fa diyatum musallamatun ila ahlihi kon nañ joxe diya bu ñu muccal jox ko jabootu kañ reyal wa tahriru raqabati mu'mina waaye goreel it jaam boo xam ne bu gëm yàlla la fa man lam yajid koo xam ne amoo ab jaam fa siyaamu shahrayni mutataabi'ayn su boobaa na nga woor ñaari weer yu tegaloo tawbatan min allah loolee nekk tuub ga bawoo ca yàlla wa kaana allahu aliman xakima yàlla day nekk ne di aji xam lépp di aji xereñi ca atteem ya ak dogalam ya wa man yaqtul mu'mina koo xam ne nag daa rey ab julit mutaammidan fekk moo ko tey fa jazaauhu jahannam kooku moom fayam mooy sawar jahannam xaalidan fiha mu sax fa ba faw wa xadiba allahu alayhi yàlla dana mer jëm ci moom wala anahu te dana ko rëbb wa aadda lahu azaban azima te dana ko waajal mbugal moo xam ne mu màgg la mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax ne yellul jullit mu jóg di rey mbokkum jullitam lu dul ne daa juum lu dul ne daa juum léegi nag ki rey jullit te juum moom suñu borom yàlla teg ko ay daan lan moo waral loolu mooy daa bëgg jullit ñi def attention fu ñu mën a nekk bañ a def loo xam ne bakkan mën na caa tuuroo jël seeni matuwaay looloo tax ba yàlla yombalu ko ci ne ku juum rey nit rek ñu ne acca demal loolu mbokk bari na tey masalan li ñu yàlla nattoo muy ay oto ñaata la ñuy rey ci ay oto fekk ne la ëppoon ca ñañ rey sàgganuk doomu aadama moo tax ñu dee ba diñ ko waxee fii lu ci bëri daanaka quatre vingt pour cent accident yi am yépp mi ngi jóge ci càgganteeg doomu aadama tey jii ndaw bi jëlee fii otoom yaa ngi jëm Saint-Louis wala yaa ngi jëm feneen di daw cent cinquante kilomètres à l'heure yow jublu waree nit mais boo reyee nit it yooyu responsable mi ngi noonu lu tax suñ tali yi ni mu tëddee kaza wa kaza loolu moo tax même boo ko tayul islam indi ay daan yoo xam ne buñ la ko tegee keneen ku dul yow dana def attention ba fii nga jaar du fa jaar ki nga xam ne daa rey julit fekk teyu ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ku mel noonu na jëkk a goreel jaam bu gëm yàlla jaam bu gëm yàlla mi ngi noonu jaam bu ñuy goreel gisuñu ko boo ko jaam ba ñu xamoon ci lislaam dañ ko daan jël di ko jaay comme ni ñuy jaayee xar yi tey bu ñu ñëwoon goreel xar jëndal am xar ñun ñëpp xam nañ loolu imma nga am jaam wala nga am jugu jaam dem jëndi ndax li yàlla di wax fii naan fa man lam yejit ku amul mooy ku amul njëgu jaam waaye même boo amul jaam tam njëgu jaam da nga war a goreel jaam loolu nekk mbokk benn mbir boo xam ne mbokk de occidentaux yi dañuy tuumaali l'islam islam dafa saxal ak njaam te moo ko ak njaam kañ la jóge ci kaw suuf islam di muy foon depuis quatorze siècle day di dañ naan en mille huit cent soixante quatre la ko xamal seen problème mu tubaab boobu la xuma chol seen xuma moo abolir l' esclavage na am kon esclavage di ak njaam dafa nekkoon benn réalité boo xam ne l'islam da ko fee fekk adduna yépp di ko jëfandikoo suñu borom bu xëyoon xëy ne gore leen jaam yi d'un seul coup jaam yi ñoo njëkk am problème ndax dafa nekkoon phénomène de société boo xamee ne nii jaam yu ci bëri nañ nekkee jaam dañ cee gisoon seen bopp mi ngi mel ni rek tey boo ci doon jox exemple li ñuy tuddee l'esclavage des temps modernes mooy ñi nga xam ne tey dañuy xëy di seen kër di liggéey sañu ñoo bañ a liggéey salaire yu bono bono bon lañ leen di fay ci ils sont obligés ñu accepté ko ndax amuñu benn pexe mais tey bu ñu xëyoon ne non non non non képp koo xam ne nii ka ngay liggéeyal fayoo ko cent mille francs nañ arrêté travail nañ arrêté loolu mais loolu ouvrier ñuy jëkk a wax déet bu ñu def loolu ndax ñun dañuy loru gis ngeen loolee ñu bàyyi ci xel bu baax dama fàttali benn góor gu ñu dëkkaloon ay ay maçon ñu nekkoon booba journée maçon mille francs la woon xam naa li may wax moom jege na ay c'était avant quatre-vingt daal mille francs la woon journée maçon ñu dem ba maçon yi dëkkal foofu yëpp ne daal mille francs dootuñu ko liggéey dañuy def mille cinq cent ñoom ñëpp ñu ànd ne dañuy grève góor gi ñu leen wax yéen suñ ngeen a grève ndax yéen ay xale ngeen amu leen njël waaye man mi yor njël mun maa am droit grève fokk ma liggéey gis ngeen loolu mbokk kon ci la mel noonu la ñuy wax réalité bu am léegi ne l'islam lan la def islam daa indi ay politique yoo xam ne daañu rot ci jaam yi di leen goreel nank nank nank nank nank nank te fekk ne du indi benn jafe-jafe comme suñu borom ni muy faatu ay doomu aadama yi xam ngeen ni ñu doon dund ci kaw suuf cent ans ci gannaaw quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñu ngi ci biir suuf mais suñu borom di leen di jël nank-nank mu ne képp koo xam ne da nga fi wax sa soxna yebal naa ak sama yaay bala ngaa mën a àndal teg ci moom ci moom ci lal goreleel jaam gis ngeen képp koo xam ne dafa wóor dokkoor ga ci ànd ak soxnaam goreleel jaam képp koo xamee ni nii dafa rey nit goreleel jaam ba pare nag daal di ñaax fokk raqaba ndax xam ngeen yoon bi gën a gaaw pour tabbi àjjana ñu naa mu ne fokk raqab raqaba fexe leen goreel ay jaam ila axiri gannaaw ba borom bi mu nii seen jaam yi bëgg a gore fa fa atuhum min malillahi lazi ataakum jox leen leen alal ndi ñu ñu gaaw gore su ngeen gisee ci ñoom ak mbaax mbokk lii mooy politique ul islam ci jaam ba ñu ngi noonu borom bi mu ne su ñee goreelee jaam bi ba pare nag nañ jël benn diya jox ko njabootug ñañu reyal seen mbokk loolu mbokk tey jëri nga gis mbokk di nattu yi yi gën a yokk rey gi mooy dañuy tudde assurance waa ji day dawal otoom man yi si assuré bu ko defee koo rey it da ngay daw taxafale rek assurance mooy fay loolee mbokk da ngay gis ni islam moom def ni képp koo xam ne dafa reyal doomu aadama da ngaa war a joxe diya ca politique ul islam it boole ci la nga xam ne mooy al aqila mooy mbokk yi nga xam ne nii ñoo jege waaje di al asaba ñoom la ko lislaam di teg bu doon atti lislaam am na koo xam ne nii dafa rey nit ca tay ca tayu ko war a joxe diya attekat bi day woo mboolem ñi sus ci moom rawatina waa géñoom waa kër baayam mboolem ñi sus ci ñoom ña ca man dara ñu daal di xool téeméeri giléem moom mooy diya ci lislaam loolu mooy cosaanu diya su dee ne dëkk ba amuñu ay gileem ñu xiyaas ko ca jur ga wala ca xaalis ba lu ci bëri da ngay gis ne ci jamono yonent bi dañ daan xiyaas gileem gu ne ñaari nag daan xiyaas la nga xam ne nii moom mooy gileem bu ne ñaar fukki xar te ña am xar moo tax ñi am xar dañ leen doon laaj ñaari junni xar ñi am nag ñu laaj leen ñaari téeméeri nag ñi amul ñi amul loolu nag ñu laaj ñu doog leen xool lan la gileem di jar mais cosaanu diye mooy gileem kon tey bu doon tee da ngaa reyal nit seen mbokk dañoo war a dem ñu xool man naam côté Gandiol ak côté je ne sais pas am na gileem ñu laaj waaw gileem li muy jar masalan buñ ne woon trois cent mille lay jar ñu ne kon cent gileem yi ñaata la ñu ne trente millions ñu ne kon képp ku fi rey nit fekk tayoo ko war ngaa jox seen famille trente millions trente millions yooyu tamit su ko defee dañuy xool ñi nga xam ne ñuy say jegañaale ku nekk ca kattan ga mu am ñu wax ko mu indi paar ngiree dii boobu mën a gaaw a faju te loolu it ngiree islam indi jàmm ndax xam ngeen doomu aadama suñ ko reyalee lu ci ëpp day bëgg moom it rey ko ko rey ñee nga xam ne ñooy famille ko rey it dañuy taxaw pour défendre ko ngiree nag jàmm am moo tax suñu borom ne nañ gaaw fam yéen famille bi gaaw leen ñu gaaw dajale jox ñi loo xam ne dana sedd seen xol mi ngi noonu diye boo xam ne dañ koy joxe musallama duñ ca wàññi dara borom boobu nag ne xanaa lu dul famille ba dëppoo daal di koy baal naam ñii dañoo roy seen baay doom yi taxaw ah yow day xam nañ ne ko baax la ko baax nga xam nañ ne teyoo ko baal nañ la su boobaa moom diye ba teggeeku na la su dee am na ko balewul it ñu jox ko wàllam diis lañu woon neuf yi bale nañu kenn moo des ñu jox ko moom fukki gileemam wala valeur am borom bi nag ni su dee ne ki ngeen rey ab jurit la waaye ñay ay mbokkam ay yéeféer lañu jurit ñi duñ jël seen alal di ko jox ay yéeféer kon fexeel goreel jaamub jurit rek waaye diye moom teggeeku na la maadaama ay mbokkam ay yéeféer lañu amma nag bu dee ne moom ay mbokkam ay yéeféer lañu naam waaye jàmm daa dox seen diggante ngeen siñente ay pacte te loolu it mi ngi ay mi ngi wàccoon avant fatu Makka kon ngeen siñente ay pacte ay pacte jàmmoo ngalawaay su boobaa it jël leen diya jox ko seeni seeni mbokk maadaama jàmm dox na seen diggante te loolu it mbokk day dañuy wan ne léeg-léeg ay erreur day am un peu partout ñu ko gis Syrie Irak un peu partout ci dëkk arab yi ay ñoo xam ne nii dañuy gis ay touriste ñu daal di ñëw rek def kamikaze rey ci la leen neex mbokk loolu ay njuumte la ay dëkk boo xam ne dañoo siñenteeg mbokk jullit jàmmoo rawatina am nañ fi ambassade seen dëkk jullit ñi am nañ fi ambassade ñoo ñee ñu ñëw ak visa dëkk ba leen invité ku mel noonu dañ koy tuddee mu ahad kenn amul droit rey ko yonent bi alei salaam nee na ku ko rey xetu àjjana du la xëy mi ngi noonu am maa nag boo ko reyee ci njuumte suñu borom mu ne kon jox leen leen seen diye maadaama ñoom da ngeen amanteeg ñoom kóllëre na ngeen leen jox diye boobee sunu borom nag ne koo xam ne gisoo jaam boo goreel comme suñ jamono yi tey mu ne su boobaa wooral ñaari weer yu tegaloo ñaari weer yu tegaloo yoo xam ne bis boo ko daggee ci sa coobare da ngay reprendre même boo moon quarante jours lii nekk tawbatan min allah mooy tuub gi yàlla tëral ci ki rey bakkan ci teyu ko na def tuub gi man nga wax ne ah mais comme teyu ko xanaa amul bakkaar aha kay bakkaaram mooy matukaay yem waroon a jël matukaay yépp loolee am na lu ca manki moo tax borom bi subhanahu wa taala ne ngir tuub rëccu ga gam am ci moom wér fokk mu jaar fii borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne mooy nekk aliman hakima moom moo xam kan moo rey ci tey moo xam kan moo rey ci njuumte moo xam kan moo rey rëccu rey ga moo xam kan moo rey rëccuwul moo tax mu ne mooy aliman hakima suñu borom bàyyi loolu daal di ñëw nag li xew ci gën a xew ci jamono mbokk mooy rayante fekk yaa ko tey nga xam ne mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na bala àdduna tukki dana am luy am muy alxërëj sahaaba yi ne ko loolu mooy lan mu ne alqatl alqatl mu ne rey gu bëri doomu aadama dana xëy di rey ay nit ca xamul lu tax sax mu leen di rey doomu aadama dana xëy ñu rey ko ca xamul lu mu def ba ñu rey ko te mbokk loolu xoolal suñu jamonoy tey li ma doon wax sànq yaa ngi dégg li ngay dégg Pakistan di ko dégg fa li nga xam ne nii mooy ci Irak feneen ak feneen ñoo xam ne dañuy dem ci néegu yàlla bi di julli ca jàkka ja ñu ne benn kamikaze dugg na fa actionné ceinture ray cinquante blessé deux cent personnes te boo ko laajoon mu ne ab jurit la de inna lillahi wa inna ilayhi rajiun boo ko laajoon mu ne jurit la attana dem ci biir jumaa ja rey fa deux cent personnes lu tax mu ne ñami rey xamu leen ñoom ñii ñëwoon di julli sa rey nañ leen xamuñu lu tax ñu rey leen mbokk loolu musiba la nañ ci bàyyi xel bu baax tey ci mujj rek benn ndaw mi ngi may laaj dana waaw ndax am ndaw buñ ko woowee ci ne na ñëw xeexi moom su xeexee bu fa dee loo ko kooku lan mooy atteer ala kulli xaal mbokk jullit suñu borom yàlla subhanahu wa taala day dafa xaraamal jullit ak jullit jàkkaarloo mbiri àdduna tax ngeen jël seeni jaasi wala seeni fetal kenn ci yéen fas yéene rey moroomam képp koo xam ne sa yéene yaa ngi dem pour ne da ngaa bëgg a rey sa mbokk jullit yonent bi nee ne ki rey ak ki ñu rey yépp sa war a la jëm gannaaw loolu ab jullit doo jóg mukk ne sa bakkan bii da ngay dem di ko jaayi lu dul ngir taxawal diine yàlla ci amma bu dee problème mu àdduna problème politique problème syndical problème sport problème mu dañ ñoo fayul suñuy salaire problème mu nangam nga ne tey tey tey moom moom danaa ko rey wala mu rey ma wala mu jox ma sama àq mbokk loolu lañ xam islam xamul loolu de islam xamul loolu loolu ku ci dee dee nga ci erreur fa nga jëm nag yàlla ko xam waaye ku dee ci loolu dee nga ci erreur ay jullit lépp loo xam ne nii dox na seen diggante dañoo war a fexe yéewénoo ko suñu borom mu ne bu dee am na sax ñu def erreur ba commencé xeex ba yeneen jullit ñi nañ gaaw defara seen diggante defara seen diggante lii mbokk la ñuy wax ci wàllu googee am maa ki nga xam ne daa rey jullit fekk moo ko tey ngir intérêt àdduna bu mu mën a doon te ka ca jiitu woon mooy doomu aadama ja alayhi salaam lan la jàppantoon ak frère am ci mbir boo xam ne mbiru àdduna mu ne ko yow dinaa la rey loolee tax mu rey ko gannaaw ba suñu borom mu ne ki rey mbokkum julitam fekk moo ko tey juróomi mbir yi de mi ngi koy xaar benn bi mooy payam mooy jahannam sawara la jëm xaalidan fiiha dana sax ca sawara ba faw yàlla dana ko teeroo ak meram yàlla dana ko teeroo ak rëbbam ci yàlla dana ko teeroo la nga xam ne mooy mbugal moo xam ne mbugal bu màgg la loolu tax boo dellu woon ci mufassiruuna yi am nañu ixtilaaf ci ndax jullit bi rey mbokk jullitam moo ko tey ndax ku mel ni yàlla dana ko baalam déet bokk na la ci gën a digg doomu mooy bu dee ne bim koy reyee day xam na ne def ne njuum njombe gu rëy def na bàkkaar bu rëy ci lim def wuru koo def lim def xaram na ci moom ba pare mu tuub ko tuub goo xam ne tuub gu sell la te yàlla xam ku mel noonu yàlla subhanahu wa taala dana ko baal amma bu dee ne moom dafa jàpp ne lam def lu dagan la rey na mbokkum jullitam lam def lu dagan la kooku mbokk daa daganal lu yàlla xaraamal ku mel noonu da ngay gis ne da koy génne ci lislaam am na ñenn ñu ci diggu doomu ñu ne jullit bu dee moo ko tey rey mbokk jullitam ca tey ko ku mel nii yàlla du ko dëppale ak tuub naam yàlla nee na ku tuub mu baal la waaye jullit daa di jàkkaarloog mbokk jullitam rey ko te fekk ne moo ko tey ngir intérêt adduna yàlla du ko dëppaleeg tuub ba koy baal am maa koo xam ne nii jullit du jullit rayoon ay jullit comme yéefar yi rayoon ay sahaaba wala nga rey keneen ko dul jullit loolu moom yàlla mën na laa dëppaleeg tuub ndax bu leen fàtte niñ ko waxe woon ci jataay yu passé suñu borom mu ne suma taaba alayhim li yatuubu yàlla moo lay wërsëgal tuub ngay doog a tuub doo ko bëgg a tuub rek tuub ku tuub nag yàlla baal la waaye tuub nga ci yàlla lay déparé looloo tax ba yow mbokk julit moytul sa kemtalal kattan di rey sa mbokkum julit nee nañ abdi ibnu abbas mas na toog ak lenn ci ay sahabaam benn waay jóge fële ba di yaa nga xonk cur mu ñëw na ko ibnu abbas ndax julit bu reyee mbokk julitam mën naa def lu tuub gum tax yàlla baal ko ibnu abbas na ko déedéet ku rey sa mbokk julit safara nga jëm xaalidan fiiha waa ji yëngal bopp bi daal di dem gaa yum toogaloon na ko ah waaw aay bi yàllay wax nag ñi rey bakkan ba pare tuub yàlla baal na leen mu ne leen xanaa gisoon waajeeg bëtam yu xonq yi su ma ko waxoon loolu mu dem rey mbokk julitam yaa ngi dégg te itamit liñ leen ko waxe rek mooy ku rey julit ca ca ca tey ko mbokk loolu ca bakkaar yi gën a garaaw yi yàlla bokk yal na yàlla musal ci suñu ndawi réew musal ci suñuy ñëpp ca loolu it niñ koy waxee ña jóg bëgg a dem xeexi lañ koy waxee yow monsieur le gendarme yow monsieur le le le le le le le policier ak ku mën a doon na am temps yii gis nañu suñu réew kilifa bi jiite suñu gendarmerie bi yal na yàlla fay ko mi ngi def ay menaces yu tar waaye nag ñi ngi koy ñaan yow mi jiite gendarme yi walla waaye ñooñu nga jiital jiital xam leen ne ñiñ jàkkaar loolu seeni doom lañu seeni jarbaat lañu ñu ci bëri ci ñoom xamuñu gàll waaye nañu fexe naxante ak ñoom nañu fexe naxante ak ñoom ba indi jàmm ci réew mi maîtriser leen ci jàmm waaye nañ moytu seen kemtalal kattan kemtalal kattan def loo xam ne kenn du ko mën a rectifier ti te mooy rey bakkan man ngaa xëy mab Dakar tabax ab Dakar waaye rey bakkan moom si fini loolu moo tax yow policier yow gendarme yow kum mën a doon ngir ordre am ci dëkk biir bu mu tax mukk ngay gaaw a yëkkati sa fetal di ko dóor ay ndaw ñoo xam ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent xamuñu sax lu tax ñu génn yal na yàlla delloo jàmm suñu réew.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا بارك الله فيكم kon suñu borom mu ne yaa ayuha allazina amanu ay yéen ñi nga xam ne dañuy nagam ida darabatum fi sabilillah su dee ne da ngeen a jóg génn di dox ci yoonu yàlla fatabayyanu na ngeen leerlu wala taqulu liman alqa ilaykum assalaama lasta mu'mina bu leen wax ka nga xam ne daa sànni jëm ci yéen ab nuyoo ayow ne koo julit tabtahuuna arada alxayaati dunia yéen ni ngi bëgg la ñuy gaaral ci dund àdduna gi muy gañaañu àdduna kese fa inda allahi maganimu kasira xam leen di day yàlla mi ngi leen di dencal ma nga nekk ci yàlla ay gañaay yu bëree bëri kazalika kuntum min qablu xam leen ni nii ngeen nekkoon ay yéefar ngeen woon fa manna allahu alaykum yàlla baaxe leen mi ngi noonu fa tabayyanu kon de leen leerlu inna allaha kaana bima taamaluuna basira xabira yàlla day nekk na ci li ngeen di def ko ci ñàkk kumpa mbokk ci lu mel ni liñ doon jàng sànq mooy rey jullit ca tayoo ko lu mel noonu it erreur la benn sahaaba defoon wala ay sahaaba defoon te mooy rey kuñ jàpp ne yéeféer la fekk ne julit la la bëri ñu ne Usaama ibnu Zayd la daloon te mooy Usaama dañuy dem am dëkk boo xam ne ni dañ leen doon xeex biñ leen di xeex ci yoon bi ñu dajeeg benn waay mi ngi yoroon ay jur bi mu dajeeg gaa yi rek mu ne leen asalaamaaleykum yéen sumay mbokk julit ñu ne ah day làqutu rek cor bopp ba mu daal di daan dégg nga fekk ne bi ko bi ko gaa yi bëgg a attaqué bi naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah waaye gaa yi rek biñ ñëwee ne ci li ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yonent bi ne Usaama ah rey nga ko fekk mu ne laa ilaha illallah ashaqaqta an qalbi ndax da ngaa xar xol bi ba xam ni mu wax dëggalam de nooy def ak laa ilaha illallah Usaama mu ne su ma li li li ma doon mébét rek mboolem lu ma defoon ci lislaam yàlla màbb ko ba keroog laa doon doog a tub dugg ci lislaam nga xam ne kuy doog a tub dugg ci lislaam yàlla da koy baal lépp waaye mun na ko nooy def ak moom waaye nag incha allah yàlla baal na ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag ni ngalla way julit ñi bi ngeen jógee bay dem di xeex ni ngeen leerlu bay xammi ka nga xam ne nii mooy yéeféer ak ku dul yéeféer fa tabayyanu ak a bari tey jii même manifestation yi ñuy wax ñañ ca rey d'accorduñ ko ci benn boor waaye ak a bari kuñ ca rey ca fekk bokk woon sax ci manifestation bi yi fi xewoon deux ans ci gannaaw am na ci benn ndaw boo xam ne yëmbal ndeysaan atelier mécanicien la nekkoon ñu yónni ko mu am lu mu doon jëndi ñëw rek daje gaa yi door ko bal demuloon sax ci manifestation ba gis ngeen loolee kon lu ci mën a am doomu aadama bala nga condamné doomu aadama ngàllawaay fa tabayyanu dee leen leerlu bala ngeen a jóg di def la ngeen di def ca loolu lu ci am solo la démb rek loolu mel noonu daf ñoo dal dama ànd ak sama mag bi ñu am fu ñu doon dem di jaale ci biñ ñëwee fekk ñu gaare oto yu bari ñun ñu ngi gaare bi ñu paree rek ñëw oto bi ñuy jëkk a dajeel dafa nuroog otoom mu daal di ñëw taxaw ma nit ma taxaw mu kur kur kur kur takku mu wiiri oto bi ñëw man de sama kele bi dama ragal na dafa am problème ñu taxaw kur kur kur kur bu mujj ah ñun dañoo jum kon oto baa nga ne waaw loolu moom caabi ni mën ko yóbbaale wala ku di xaal mbokk da ngay gis rek ku ñu fekkoon foofu rek wuub sàccee yi ñi dañuy sàcc oto bi loolu moo tax ba mbokk julit moom day teey day teey balaa condamné kenn fokk da ngay teey fa tabayyanu borom bi subhanahu wa taala ne kon bi ñu ñëwee mu ne leen julit la wala ñu ne teey laaj ko questionné ko waaye wara doon tëb rek rey ko borom bi subhanahu wa taala nag ne yéen a ngi yàkkamti dunduk àdduna ne yéen a ngi yàkkamti matérielu àdduna te loolu moo alagoon waa Uhud deset ba lan moo ko waraloon mooy yonent bi wax na leen lu mën a xew ci montagne bi bu leen wàcc dañu gisee saxaaba yi jëkk attaqué gañe rek ñu ne ah waay jeex na daal di wàcc suñu borom mu ne minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-axira am na ci yéen ñu bëgg àdduna am ci bëgg al-axira suñu borom nag ne bu leen yàkkamti lii ngeen bëgg ci ay ngànnaay ay ngañaay suñu borom mu ne ay ngañaay yu bëri ma nga ca yàlla wa waadakum allahu maghanima kasiratan taaxuzunaha na leen na seen xel dal ngañaay yu bëri ma nga ca kanam ca giiri arab yi nga xam ne amuñu dara waa faris empire faris mi ngi seen kanam da ngeen ko nar a jël empire ruum mi ngi seen kanam da ngeen ko nar a jël fat kon maxaanima kasira lu mel ni it la ñuy wax ci ndawal jullit bul yàkkamti sa àdduna jox nañ la responsabilité ci ay kees lu la neex mën nga ko faa am bul yàkkamti sa àdduna yemal rek ca la dagan toi le douanier toi le inspecteur des impôts toi le nangam toi le nangam gis nga li yàlla tudd ci yow doo dee mukk ci jotoo ko bu ko jël mukk jëlin bu ñaaw fexeel rek ànd dal xamal ne yàlla lam lay gardeel ca kanam loolu da ngay gis ni boo bàyyee lii lu mu xaraamal lam lay dencal ci kanam moo ko gën kon bu leen yàkkamti inda allahi maghanima kasira ay yéen kii nee na leen julit laa ngeen ne xay déedéet du julit day làqatu waaw yéen da ngeen a fàtte yéen ay yéeféer ngeen woon yàlla baaxe leen te mbokk yeneen bi muy jihaad daanaka mën nga wax nekk cent pour cent ñi àndoon ak ñëpp ay yéeféer la ñu woon ndax daanaka jihaad ñi ngi ko farataal atum ñaareel ma ca gàddaay ga na am yeneen ci bi treize ans la def màkk ñaari atum ñaareel ma mooy kon quinze ans lañ quinze ans mooy da ngay gis ne kon ña doon jihaad ñëpp ëppaloon lañ quinze ans kon ñoom ñëpp ci ak kéefar lañ nekkoon waaye yàlla baaxe leen fa man na allahu aleykum loolu it dees koy nangul ab julit mbokk yàlla day baaxe gis ngeen saay saay bi firawna ba Muusaa ñëwee di ko waar lan la jëkk bëgg koo dammate yow yaa nekk fii di waaraate xanaa di yow yaa fi nekkoon ñu yar la fii suñu pale bi jàppale comme doom gannaaw ba wa faalta faalataka lati faalta boo déggul arab sax xam ne wax ju ñaaw la faalta faalataka lati faalta nga def fi sa jëf jooju nga xam ne moom nga fi jëf fàttali Moussa dafa rayoon nit bi muy dem mais Moussa lu mu ko wax faaltuha idan wa ana min addalin dama koy def dama réeroon loolu it dana doy benn waa benn waay ñëw fii jàng diineem di laayee nit ki ay ay diine waaw yow ak cam yow yow yaa daan tëj bàyyi yi fii nga daan nag da ngay waaraate yow yaa doon nekk fii yan kan kan moo la dàqoon a njaaloo yow kii naan waay kii nga xam ne fi la daan nekk di naan sàngara kii nga xam ne fi la daan nangam na am waa gars yi loolu la nekkoon waaye man allahu alayhi yàlla moo ko laa moo ko baaxee loolee kon di ko fàttali démbam yaag firaw na yéen a yem yàlla day baaxe loolu itamit ñu góorgóorlu ba képp ku ñu gisee ci yoonu mbon ñu ñaan yàlla baaxe ko di ko ñaanal yàlla di ko laayi biir yàlla subhanahu wa taala ci mbaaxam gis nañu ay gaa yoo xam ne ni xatta ci ulamawul hadis ay grand agresseur lañu woon waaye ba leen yàlla baaxee ñu wëlbati ko waat daal di tuub daal di rafetal seen mut loolu lu baax la bokk na Sénégal agresseur bi gën a siiw bi fi jëkk a siiw mooy ki ñu wax yaa di koon ni enseigne Bilal yaa di koon mag ñi xam nañ ko ci ñi gënoon a siiw ci premier agresseur Dakar yi ci la bokk mais avant muy dee yàlla baaxee na ko mu tuub tuub bu sell dem jàng alquran dem ubbi daara di jàngale alquran gis ngeen kon fa man allahu aleykum loolu loo ab julit war di bàyyi xel fu mu mën a toll ñaan yàlla subhanahu wa taala daal di koy wërsëgal te xam ngeen li am solo rek mooy mujj gu rafet yal na yàlla rafetal suñu mujj borom bi nag mu ne li ngeen di def ku ci ñàkk kumpa la kon ñu bàyyi Cheikh Ousmane dolli ñu tey rek comme dañoo teel kii
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا جزاكم الله خيرا kon suñu boroom jalla waala mu ne laa yastawi alqaa'iduuna min almu'minin du yemoo mukk ña nga xam ne dañoo toog ca ña gëm xayru uli darari lu bokkul ak ñay boroom lor ya walmujaahiduuna fi sabilillah duñ yem mukk ak ñay jihaad ci yoonu yàlla bi amwaalihim wa anfusihim di jihaad di joxe seen alal ak seen bakkan faddala allahu almujahidina bi amwaalihim wa anfusihim yàlla day gën a lene ña nga xam ne dañuy jihaad ci seen alal ak seen bakkan ala alqaidina daraja ca kaw ña nga xam ne dañoo toog yàlla gën a lene lin fa ay daraja yum leen di yëkkati wa kullan waada allahu alxusna képp kenn ci ñoom it yàlla ngi koy dig la gën a jekk ca mooy aljanna wa faddala allahu almujahidina ala alqaidin donte ne yàlla gën na la ne ña nga xam ne dañuy jihaad ci ña nga xam ne dañoo toog ajran azima pay goo xam ne pay gu màgg la darajatin minhu ay daraja yu kawe yu bawoo ci yàlla wa magfiratan wa rahma ak njéggal ak yërmande wa kaana allahu gafuran rahima yàlla day nekk na koy jéggalaate koy yërëmaate إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ña nga xam ne day dana leen faat malaaka ya ñu nekk di aji tooñ seen bopp qaalu fima kuntum malaaka yi na leen waaw yéen ci lu ngeen newoon qaalu kunna mustadafina fi l ard ñu ne ñun day dañu dañu néewaloon doole ci kaw suuf qaalu alam takun alam takun ardullahi wasia ñu ne waaw xanaa suufa si yàlla si yaatuwul woon fa tuhaajiru fiha ngeen gàddaay jëm ci suuf soosi fa ulaika mawahum jahannam ñooñu day seen wàccuwaay mooy sawara wa saat masira te ak bon ak la nga xam ne nii mooy ak mujj di mu ca sawara mi ngi noonu bokk suñu boroom gis lañu ne jihad fi sabilillah da koo def fardu kifaaya bu te ñenn taxawee rek day wàcc ña des mi ngi mel ni jullig niiw dafa nekk fardu kifaaya su dee am nañu ca taxaw day wàcc ña ca des amma nag tey jii ka demoon julli néew ba dana am tuyaaba joo xam ne ñu demul amuñu ko am déet ci dem jullee néew rek am na tuyaaba ju toll ne montagne Uhud ka ànd ak moom ba ca armeel ya am na tuyaaba ju toll ne montagne Uhud lu mel noonu la ñuy wax ci jihaad borom bi subhanahu wa taala ni yàlla du yemele ña nga xam ne nii dañoo toog ba ñu dem jihaati te jullit ña te amuñu benn ngant ak ña nga xamee ni nii moom dañuy jihaat ci yoonu yàlla yàlla du leen yemele amma ñi am ngant ñooñu yàlla da leen di yemele ngant loole yàlla wax na ko laysa alal ama xaraj wala alal marid xaraj wala alal laysa alal araji xaraj wala alal ama xaraj wala alal marid xaraj mooy ñi nga xam ne seen i tànk baaxul ñi nga xam ne dañoo feebar ñi nga xam ne dañoo silmaxa wala ala lazina la yajiduna ma yunfiqun ña nga xam ni dañoo faqir amuñu dara ñeenti ñii ñooy ulul darar ñu mel nii buñ jihaatul it bu seen yéene sellee am nañ yoolu jihaad yonent bi alayhi salaam jihaad bi mujj génn mooy ba mu jógee Tabuuk jihaad bu metti def ñaar fukki fan ci àll ba sallallahu alayhi wa sallam ñu borom nettali ko ca tawba nettali bu doy waar waaye bañ demee bay nibbi si mu ne day moo ne am na madina ay nit ñoo xam ne amul coono bu ñu dal ci suñu jihad bi amul tuyaaba buñ ci jëlee lu dul yàlla boole na leen ci de saxaabi na ko ah ci ña nga madina ñu ne waaw waaw ndax lenn dong te ñu ànd ak ñun mooy ngant bi leen yàlla teg amma nag ñi nga xam ne amuñu ngant suñu borom mu ne du ñeem ak ñuy jihad mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala nag mu ne doonte ne julit ñëpp yàlla mi ngi leen di waajal alxusna muy aljanna te yow ndawal julit xamal ne la gën a baax la gën a kawe lépp mooy aljanna bu la ko dara xañ bu la ko président de la république xañ bu la koy milliard xañ bu la ko lenn xañ la gën a kawe lépp mooy aljanna yàlla mu ne julit ñëpp mi ngi leen waajal aljanna looloo tax da nga naan julit ñëpp àddina lañ jëm loolu la nit di wax julit ñëpp àddina lañ jëm amma nag ndax diw àjjana la jëm déedéet kan mooy julit gu yàlla nangu ak julitam kooku yàlla ko xam am déet li nga man daal moo di ne ña yonent bi tudd ne àjjana lañ jëm loolu moom àjjana lañ jëm mi ngi noonu ña nga xam ne ay julit lañu ñu gis seen liggéey rafet dañuy rafet njortu ci ñoom dañuy rafet njortu ci ñoom ni daal diw lu mu defal yàlla dañuy rafet njortu àjjana la jëm amma nag julit du dogu ci mbokk julitam ba yonent bi tuddul ne diw mi ngi aljanna loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala nag mu ne ñoom ñëpp mi ngi leen dig àjjana waaye nag yàlla ngi gënale ña doon jihaad ca kaw ña toogoon lu mu leen di gënale mooy ay daraja ak njéggal ak yërmande te mbokk julit suñu borom mu ne xoolal àdduna ni mu demee unzur kayfa faddalna baaduhum ala baad xoolal mbokk yàlla ni mu teqalee àdduna nga gis ñoo xam ne ñi ngi dëkk dans des villages reculés amuñu ndox amuñu courant nekk ci ay gayndeeg lépp wër leen nga gis ñoo xam ne ñi ngi nekk ci capital yi seen dara manqué wu leen naka noonu doomu aadama yi dañuy gis koo xam ne nii li muy am par mois matul sax vingt mille francs gis koo xam ne nii il a presque deux millions par mois gis koo xam ne il a un milliard par mois ainsi de suite suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala mu ne gis ngeen ni ma gënalee seen bopp ci àdduna nii àllaaxira moo pay daraja yonente bi alayhi salaam ne àjjana yàlla da koo def téeméeri wàccuwaay diggante wàccuwaay bu ne ak moroomam mi ngi mel ni diggante asamaan ak suuf ba muy téeméer nee na firdaw su muy féete kaw daraja yu kawe yooyu nag yàlla nga koy doon jox ñuy jihaad fi sabilillah loolu moo tax ba ab julit dana nekk mébatam tab bi aljanna waaye nag nekk nekk sa mébétit say daraja kawe ci àjjana te bokk ni li yëkkati sa daraja ci àjjana mooy al jihaad fi sabilillah lan mooy dëgg-dëgg jihaad mooy fexe bi diine yàlla ji jëm kaw lépp loo xam ne yaa ngi koy def ngir diine yàlla ji kawe da doon tabax ca jàkka yaag dimbali ca daara yaag dimbali ñay woote ci islam baag dimbali mboolem loo xam ne nii daal xam nga ne effort la boo xam ne boo ko defee lii diine yàlla ji dana ko dëgëre dana ca dëgëre loolu rek mooy jubluwaayu jihaad jihaad musul nekk rey ay yéeféer waaye jihaad mooy islam taxaw mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne kon mi ngi leen di waajal loolu njéggal ak yërmande amma ki nga xamee ne nii dafa deful loolu mooy ñi nga xam ne dañoo toog ci seen dëkk ya xam nañ ni diine lislaam muy dëgg waaye ñu ànd ak bokkaalekat yi di bokkaale ñu mel nii day borom bi subhanahu wa taala nee na ëllëg boo xamee ni nii malaaka ya dañ ñëw di leen faat malaaka yi dañ leen di laaj waaw yéen nu ngeen def ba dee ci kéeféer gi te juri ci xamal kan mooy malaaka malaaka ñooy mbindaafu na borom bi nga xam ne yàlla moo leen féeti lañu dëkk asamaan yàlla di leen yónni ay mission ci kaw suuf bokk na ci mission yooyu heure bu ñuy jëli ab saay-saay dañuy ñëw seen kilifa muy malakul mawt ci kattanu yàlla mooy faat mboolem ñuy faatu ci kaw suuf dana la jaaxal waaw ñiy faatoo Pakistan ñiy faatoo Amérique mbokk loolu sa xalaat la yow doomu aadama waaye suñu borom yàlla ci kattanam amul lépp lu mu bëgg dara du ko ko itteel kan kuy dee malakul mawtu mu lay faat amma ñooñu dafay am ñu muy àndal buñ ñëwee daañu laaj yéeféer bi waaw yow lan moo tax nga sax ci kéeféer gi ba dee ci ñu naan ñun koy xamoon nañu diine lislaam muy dëgg waaye ñun dañoo bundu xataaloon force ñu nañ nañ jaamu xërëm yi rek loolu mën ci yóbbu su ko defee malaayka ne leen waaw ndax amuleen woon pexe génn dëkk bii ñu ne leen du ngeen fa jaamoo yàlla ak suufa si yàlla si ni mu yaatoo lool amuleen noonu pexe génn dem feneen foo xam ne da ngeen fa jaamoo yàlla suñu borom mu ne ñu mel nii day sawara moom mooy seen wàccuwaay te dara gën te ñaaw ak mujj mujj la nga xam ne mooy sawara kon ñii mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañoo saxoon ci bokkaale ca amoon nañu pexe mën a jóge foofee dem feneen loolu it dañ ciy bàyyi xel ak bari tey ay doomi jullit yoo xam ni dañu naan man kat fii muy liggéey dañ fi tere julli ah waaw d'accord dañ fi tere julli waaw ana lu tee woon nga bàyyi foofu dem foo xam ne kenn du fa tere julli am déet loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax il faut ngeen oser def loolee mi nga noonu am na benn xale boo xam ne saane daana nekk fii ci jàkk ji benn usine ba mu doon liggéey usine plastique la nee na des fois dañ daan dugg six heures fekk fajar jotagul léegi yow bu ñu demee ba fajar jotee soo demee di julli gars yi nga la noo doo julli kenn du fi julli travail de chair la du ngeen fi nekk di julli nee na ko rek bañ ko beccee muy julli lañ ko dàq am fi ay jafe-jafe waaye wallahi mbokk yàggul yàggul dara yàlla may ko ñu recruter ko ci volontaires yi mu am liggéey boo xam ne moo gën foofu liggéey ba mu doon liggéey suma benn wëllëre rahimahullah faatuna mi ngi doon liggéey ci benn hôtel ci hôtelu Dakar yi am koo xam fa mu doon nekk patron di ko tere muy dem di julli ci suñu bilal càmm yàlla na yàlla sàmm ko yaakaar naa su patron daan la tere dem jumaa de mi ngi noonu tere mu julli ci mu jàppante ceeg moom moom dàq ko dàq na ko naam xamoon naa ko bu baax dund na ay jafe-jafe yu ko yàlla nattoo ba xam ndax dëggu na am déet waaye bi muy dee ci mercedes am la accidenté gars yi ji loolu doy na chemin de loolu rek doy doy na lay mooy bi muy dee ci mercedes am la dee yaa ngi dégg loolu kon muy wane ni mbokk jullit fépp foo nekk ñu tere la fa jaamu yàlla bàyyil loolu yow soxna nga nekk foo xam ne dañ naan le fii boo fi nekkee doo woor fii boo fi nekkee doo julli fii boo fi nekkee doo nangam ëpp sëy jaru ko dara jaru ko foo mën a nekk ca jaamu na fa jaamu yàlla jógal dem feneen sinon boo ko deful bis boo la malaaka yi dee jël si doo am lay amma ña nga xam ne nag yàlla xam ne ne amuñu benn pexe buñ tuxoo ñooñu moom daan jàng seen mbir suba yal na yàlla yaatalal ñu ci suufam ban jaamu ko bañ ko bokkaaleeg dara yal nañu yàlla musal ci lépp luy gàllankoor suñu diine yal nañu yàlla may aafiya fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw ala kulli xaal ndax ci la nga xam ne moom mooy ñaanu xunuut fu ñuy bàkkee suñu boroom nit ki am na droit yëkkatey loxoom naam mbokk julit loolu bu la neexee yëkkati say loxo ndax ña ndax ndax xam naa ci début bi ndax ñaan yàlla subhanahu wa taala dafa am ñaari façon ñaan mooy ñaan yàlla ci bàkk ko ak ñaan yàlla ci la nga xam ne ñaan ko directement loolu kon da ngay gis ne ki bàyyi woon dégg imam baa ngi bàkk yàlla yëkkatul ay loxoom ba mu commencé ñaan mu yëkkati loxoom loolee da ngay gis ne lu baax la ka commencé it ba muy bàkk yàlla mu jàpp ne it loolu ci façon ñaan la mu yëkkati loxoom loolee da ngay gis ne da ngay gis ne it lu baax la amma nga seedeel nit ne diw day diw day ko baax la loolee da ngay gis ne nekkul loo xam ne nii lu ñuy tere la nekk ñu di tere ci doomu aadama bi nga ne ah diw day wax dëgg yàlla xamuñu ci moom lu dul lu baax te loolu mooy la nga xam ci moom diw day xamuñu ci moom lu dul lu baax mu bañ a nekk nag aw aw aw aw tagg dafa am lu ñu tuddee tagg ak seede di tagg nit ki naan moo mel nii moo mel nii moo mel nii yeneen bi da ko doon tere waaye nga ne Omar ibnul Xataab mas nañu ko mas na wax Abu Musa al Ashari ne ca benn waay bu ñëwoon ci moom na ah waajo baax ji yeewoo ngi noonu waaye boo demee bu ko ko wax abubakarin saddiq toog naag ay nit ñu koy tagg mu ne ay yàlla yàlla nag ma teg ci kaw fiñ ma fooge te yàlla nag ma baal li ñu xamul ci man kon daal jimbi rek ah diw day wax dëgg ko baax la ku yaatu la wala ah diw day ko baax la ku neex deret la loolu nekkul lu ñuy bañ fiig nag yeggul ci aw tagg wuñ koy tagg wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw day am ñu tagg yàlla waaw naam mooy moo dine ne moom la ma la ñaan dafa am ay façon ñaan dafa am ñaanu tagg ak ñaanu masala rek ba da ngay gis yonente bi alei salaam mu ne afdalu duwa li gën li ñuy ñaane yàlla mooy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa la kulli shayin qadir maadaama place bi place u kunut la place u ñaan la tagg yaag ñaan yépp mënees na caa yëkkati ay loxo donte ne ne la chaque am na borom xam yoo xam dañ naan fi ñuy taggee du ñu fa yëkkati loxo waaye tamit bu ñu delloo ci umumu ñaan bokk na ca ba wax amin waaw wax amin moog yëkkati loxo kay benn lañu yaa ngi dégg fi ñuy waxee amin ak kiy wax yëkkati loxo mooy benn ndax ki yëkkati loxo mi ngi neen amin yaa ngi dégg yëkkati loxo mooy yàlla amin yaa ngi gis xam ne loolu xam ne ne yëkkati loxo mooy amin waaw mi ngi noonu waaw bismillah ah ah mu ne ay tëkku de xanaa xanaa du xunu ah waaw mais loolu imam bu wax la du njuumte la am na imam yoo xam ne seen xunuut dañ koy jaawale xutba mbokk xunuut du lenn lu dul ah nga ne xunuut lay wax dafay am imam yu bari seen xunuut dañ koy jaawale xutba mbokk xunuut lépp mooy ñaan yàlla la tey ki naan ya dafa shadidul iqaab it danaan yàlla yàlla yow yaay shadidul iqaab yal nañ ñu musal ci say iqaab loolee ma des na wax amin yaa ngi dégg loolee da ngay gis daal li wér mooy xunut moom lépp dafa war a nekk ñaan yàlla même booy tudd mbugalum yàlla it pour ñaan yàlla musal mi sa mbugal yaa ngi naan rabbana atina fi dunya hasana fi laxirati hasana wa qina azaba annar waa ji mi ngi naan azaba annar waaye lan la ko jiital qina azaba annar kon it boo tuddee mbugal imma nga tudd mbugal ni musal ñu ci wala nga ne yàlla musal ñu ci mbugal loolee da ngay gis ne maadama daal place u xunut la place u ñaan la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam asalaamaaleykum. ala ko.
léegi ñeneen jour yi nga xamante ne du ko mën a woor te day jëm jëm gën a woor maa dootul mën a woor da koy arrêté léegi ndax day fay da koy fay après koor wala da koy day kii xam nga yoon yoon ndax day gënee wala day day fay.
am na ay yenn ci borom xam-xam yiy wax naan gannaaw cinquante ans jigéen du gis règle waaye mbokk loolu amul dalil lii dalil mooy règle amul âge bu muy commencé amul âge bu muy yem tant que daal gis na deret boo xamee ne nii wóor na ko ne moom yàgg naa gis règle ba passé cinquante ans xam ne ne lii deret règle la su boobaa dafay bàyyi julli bàyyi ànd ak borom këram bàyyi koor allahuma lu dul mu leer ko ne ne deret bii de ak feebar la masalan dama tukki woon voyage bu metti wala dama down wala dama nangam mais bu dee deretu normal te mu xam ne deretu règle la âge bu mu mën a doon day bàyyi julli day bàyyi koor mu des ki nga xam ne dafa feebar feebar boo xam ne nii léeg-léeg mu mën a woor léeg-léeg du du du mën a woor su boobaa dañ naan ko xoolal li nga mën a woor nga woor ko li nga munta woor am na onze mois nga koy fay nank nank ba mu jeex boo demee nag ba xam ne moom mënatuloo woor du tout su boobaa moom au départ bis boo waroon woor nga koy joxeel fidiya mais tant que kattanu woor mi ngi ci yow su boobaa la nga mën a woor ngay woor la ci des nga noté ko onze mois yi nga xool noo ko ci fay wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw ala kulli xaal ay bida yoo xamee ni nii dañ koy takfir loo doomu aadama yi loolee ay mbir la yoo xam ne dafay xaw a doon luy compliqué la nga xam ne nii daal mooy bida bu ñuy takfir la mooy bida boo xam ne dafa yegg ci pas-pas mooy koo xam ne ni dafa gëm loo xamee ni nii dafay yàq pas-pasam loolee képp koo xam ne dafa gëm luy yàq pas-pasam ku mel noo ne mënees na koo wax ne kii dafa génn ci diine l'islam loolee nag ay mbir la yoo xam ne nii mën na nekk ci ñenn ñi nga xam ne nii dañoo dema dema dem ba gëm ni masalan ki yonent yàlla bii kat tey jii dañoo gis ni moom mi ngi moo ñëwaat judduwaat ne fii moo def nangam moo def nangam mbokk ñooñee képp koo xam ne nii dañ laa war a woo laayi la biir ne la lii ñu sos ci diina ji day yonent bi mosu ko woote ay saxaaba mosuñu ko woote xam ne yonent bi day génn ci bàmmeelam dem di judduwaat di mel nem di mel nen yooyu ay biddaa la yoo xam ne dafa aju ci pas-pas biddaa bu aju ci pas-pas daal loolu xëy na ay yeneen jàngale la lañ koy mën a xam moo di ne ne doomu aadama bi dañ koy considéré yéeféer la waaye kañ lañ koy considéré yéeféer gis boo demee uqimat alayhi al hujja fokk dañ koy woo leeralal ko ba xam ne lii muy def kat yow en tant que jullit nga waaye nag lii nga dugal ci sa diine pas-pas bi moom du pas-pasub jullit buñ ko ko leeree ne nag mu féetulu na maa tey su boobaa la ñuy doog wax ak kéeféram waaye jëmm jëf jëm koy jëfe rek du tax ñu jàpp ne ab kéefér la wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain